ci daara ji wala ñu bëgg ay leeral ndax tàmbale na incha allah te ñu fasen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ñu am solo muy sëriñ Mor Khady ak Serigne maalik Bassine si ci li ñu tàmbali woon démb muy roy ak romb te mu tege ci xam-xamu shariha ak xam-xamu xaqiqa ne ma koy faral di waxee rek mag ñi de seeni wax ak seeni jëf lu mat di xeeñtu la ndax ñoom day dëgmaloon nañ yàlla ànd ak sëriñ Touba ba am ngërëmul yàlla kon yaakaar naa ku jaar ci seen boor suñu borom mën na laa dimbale te ñoo xam ne nii day euh, ndax sëriñ Mor ak Serigne Malick Serigne Touba noon na leen wax na ko soxna Faat Ja wax ko ñeneen ne leen yéen day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon na ngeen bokk ci ñooñam waaye man la leen sama borom jagleel kon nag yaakaar naa ñoo xam ne ne yonent bi bëggoon na ñu bokk ci ñooñam sun borom jagleel ko sëñ Tuubaa ñuy ay taalibeem ñooña mat nañu roy te bu ma leen waxee waxaal naa mboolem euh, seex yi àndoon ak sëriñ Tuubaa ndax ñoom ñëpp ay géej la woon dañoo euh, du yoon ba fees dell euh, seen xikma yi nag mooy roy ak romb dañ ko doon wax démb mu tege ci xam-xamu shariha ak xaqiqa nit lépp loo gis mu koy def tem leer la tege ci xam-xamu shariha royal lépp loo gis mu jaaxal la te xamoo lu mu doon rombal ndax benn mu amuk may di ko def wala mooy mooy di ko def te lu mu ci doon rek moom la yitteel ndax suñu borom tabaaraka wa la day wax ne dénk naa leen seen bopp yéen jullit ñi daal daal di wax ne jubadi jubadi ku jubadikat loram du leen wàññi dara bu ngeen jubee yéen alaykum anfusakum laa yadurrukum la dalla isa tadaytum dellu waxaat ne bàkkaarub jàmbur kenn du ko bindal kenn wala taziru waziratun wisra uxra kon nit lu mu def gannaaw moom bu dee lu muy amee bàkkaar it moom lañ koy bindal kon yow loola warulaa yitteel la la war a yitteel mooy lu baax la ngay def di ci am aw yiw ak lu bon la ngay wattandiku eh, di ca di ca di ca am bàkkaar kon loole nañ ko sàmm bu baax a baax te xam-xamu sharia ak xaqiiqa dañoo bokkut yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bi mu rañaanee suñu borom tabaaraka wa taala jox na ko fa ñetti xeeti xam-xam benn bi jaadu na mu xamal ko euh, nit ñëpp te xamal leen lépp bu bu ci denc dara te boom ko dencal kenn loolu mooy xam-xamu shariha te loolu dafa bokk ci xaqi yonent yi alayhim salaatu salaam moom la sëñ Tuubaa di wax naan wa annahum yajibu fi xaqihimu euh, sidqun amaanatun wa tabliquhumu wa kasibun xiyaanatun kidmaanu harramaha alayhimu dayaanu mu ne ñaareelu xam-xam bi bu gisee ku ko soob mën na ko ci xam lu ko soob loolu mooy xam-xamu xaqiiqa ci la jullit ñu rawantee asaabiquuna bil xayraat ci la ñu rawantee ñetteelu xam-xam ne nag araam na mu xamal ko keneen diggam ak boroomam rekk la dox kon xam-xamu shariha ak bu xaqiiqa bokkuñu loolu tax na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci sulhul Hudaybiya bi muy bindanteeg yéefar yi ay accord tey jël li gën a suufe mu niru ne di leen jox li gën a kawe Seydina Omar ibnul Xataab da ca tàng ba dem ci Seydina Abubakar ne ko waaw du ñun ñoo nekk ci dëgg mu ne ko ah mu ne ko du yéefar yee ne ci fen mu ne ko ah mu ne ko waaw lu tax ñuy jël li gën a suufe di leen jox li gën a kawe Seydina Abubakar ne ko giñ naa ne kii yonent yàlla la mu ne ko man it kay seede naa ne yonent yàlla la daal di koy romb dem ci yonent ne ko waaw du ñun ñoo ne ci dëgg mu ne ko ah kay mu ne ko du yéefar yee ne ci lorut dëgg mu ne ko ah kay mu ne ko waaw lu tax ñu jël lu suufi la di leen jox li kawe yonent bi sallallahu alayhi ne ko Omar ndax gannaaw bu yàlla ak yonentam àttee ba noppi day am dangay am loo cay xebet Seydina Omar nee na bi mu ko waxee mu mel ni sama nopp yi dafa sedd guy ba léegi bu ma ko fàttalikoo duma dañ di jéggul suñu borom kon yonent bi booba xam na lu Omar xamut ak lu jullit ñi xamut loolu moo tax juyoog sa kilifa euh, baaxut te wóorut tamit moo tax alxuraan day wax na